religion sur ASLBN Télévision. liloo leen mbir ma ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nanu li seytaane yi wax waaw gëm nanu ko ne daal Souleymane kon lii la ñu noté woon wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux إذ أخبر الله عن قوم نوح إنهم زعموا أنه ساحر وكان السحر أيضا ساريا في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان وقالوا أن سليمان قد جمع كتب السحر وال والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحن عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحر إنما كان ساحرا ñu ne njibar nekkoon na lu am lu alayhi salaam di ñëw ndax boo xoolee ci jamono yonent yàlla nuux alayhi salaam ay nitam woo woowe woon nen ko jëbarkat waxoon ko ne yow nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jëbarkat te yonent yàlla nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla suleymaan ay téeméeri téeméeri at kon nga xam ni njëbar nekkoon na lu yàgg gis ngeen ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam ndax yonent yàlla eh, yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yet ba mu ñëwee itam yetoon yet wa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp keroog ba mu ko sànnee ca kanamu Firawna Firawna dafa wax Moussa ne ko yowkat kat ab jibarkat nga da ñëw di ma wan ne jibarkat nga waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni mosuloo ko gis gis ngeen la ca yonent yàlla Moussa daj ak jibarkat yi ndax na dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar keroog ba ñu dajeek yonent yàlla Moussa su fekkonte ne yonent yàlla Moussa yorul woon lu gën jibar kon danañu ko gañe ndax jibarkat yu jéggi woon dayoo ci ak njibar la indi woon wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ca ne leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleymaan kon ñu xam ne njibar lu yàgg la wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan génn na àdduna ci la seytaane yi def loolu jël ak njabar utiliser ko suul ko ca suufu chaise ba mu daan ba mu toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppee ko bon ba keroog bi seytaane defee loolu yahud yeeg ñu bari dañu lànk ne suleymaan alayhi salaam du yonent suleymaan alayhi lu jiitu yonent bi di ñëw ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent waaw waaye alquran ci boppam moo ko setal moo fenloo itam seytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell kii di yonent yàlla suleymaan alayhi salaam moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwee doon waxtaanak ak juif yi ba tudd yonent yàlla suleymaan ne yonent la woon juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent buur la woon jibarkat la woon القرآن nag alquran واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر fa yata'allamuuna minhumaa maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi wa maa hum bi daarriina bihi min ahadin illaa bi izni illah wa yata'allamuuna maa yadurruhum wala yanfa'uhum mu mel ni alquran moo setal yonent yàlla suleymaan alayhi salaam yàlla wax yonent bi ne ko maa ngi lay yëgal ne am na ab kuréel ci juif yi ñoom sànni nañu tawreet teg ko fële weddi nañu itam yonent yàlla Suleymaan ne du ab yonent ne buur la te jibarkat la maa ngi lay yëgal ne yonent yàlla Suleymaan ku set la ku baax la ab yonent la woon maa ko yónni waaye masta nekk jibarkat masta nekk yéefeer maa ngi lay yëgal ne nag seytaane yi ñoom ñoo def pexe ñoom ñoo weddi seen boroom ñoom ñoo tëral ay pexe pour taqal deru yonent yàlla suleymaan alayhi salaam wante suleymaan alayhi salaam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamante ni jiñ neen ko ko mu ne ko kon seytaane yi ñoom kay ñoo fi indi ak njabar di ko jàngal nit ñi mu ne ko itam yàlla joxoñ ko itam beneen histoire boo xamante ni am na ci diggante ñaari malaaka yu nga xamante ni ñoom itam seen histoire lu am solo la mu di haruta ak maruta firikatu alquran yi wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم tahbituhuma ila al ard faxtaaru haaruta wa maarut ñu ne ñaari malaaka yi yàlla junj ci aaya bi mu di haaruta ak maaruta ñu bari ci firikat yi wax nañ ne ñaari malaaka leen yu nga xamante ni yàlla leen wàcce woon fii ci ko suuf waaye seen wàcc fii ci kaw suuf amoon na sabab sabab bi moo di malaaka yi dañu gisoon jëfi doomu aadama yi yi ci yéeg jëm ci kaw asamaan nekk ay jëf yu bon moo ëpp fuuf li ci yéeg ci jëf yu baax loolu taxoon nag ñoom ñu xaw a daal xeeb nit ñi sikk leen ci moy googu ak yu bon yooyu nga xamante ni nit ñi dëkke nanu ko ak seen bakkaar yu bari loola taxoon nag ñu daan sikkal nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxuñu ndax yàlla ngi leen teg ci kaw suuf mais nekk fa lu dul moy ko bañ koo jàmm ñu ne nag jamono boobu mu ngi tombe woon ak jamono yonent yàlla idris alayhi salaam idris nekkoon yeneen bu sell moom itam malaaka yi daal di dem ci yàlla ne ko suñu boroom yow de jël nga nit ñi def leen sa xalifa ci kaw suuf nga tànn leen wante nag ñu ngi lay yëgal ne ñoom de soxowuñu jaamu la ñoom kay dañu dëkk ci mooy la yàlla na leen li ma def ci ñoom de su ma ko defoon ci yéen ngeen may mooy ni ma nit ñi di mooyee ndax yéen du ngeen nelaw du ngeen euh, lekk du ngeen naan lépp luy wàllu shahwa amu leen ko yéen daal seen bëgg-bëgg moo di jaamu ma noonu laa leen binde nit itam dama ko bind ci mu may jaamu di ma mooy te li ma def ci moom su ma ko defoon ci yéen ngeen may mooy waaw léegi nag malaaka yi nag ne ko ah, suñu boroom ñu ngi lay yëgal ne kat jaaduwul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëloon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yàlla wax leen ne leen kon tànn leen ñaari malaaka ci seen biir malaaka yu nga xamante ni woolu ngeen leen ci jaamu yàlla ak sell seet leen ñi gën a sell ci yéen ngeen tànn leen ci leen tànn nag ñaari malaaka yi ñu di mu di Haaruta ak Maaruta ñu nekkoon ñaari malaaka yu sell ñu ne yàlla daal di jël nag lu ñuy tuddee bànneex def ko ci ñoom jox leen bakkan ñuy gëmmentu di xiif di mar di am ay bëgg-bëgg di xemmeem lépp lu nekk ci nit rek e, mu jël li ñuy tuddee xarisa def ko ci ñoom ba e, ay malaaka leen wante itam boo leen xoolee ci seen e, wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñoom ak nit ñi ñoo bokk bëgg-bëgg yàlla nag daal di leen jël wàcc leen yàlla wàccee fii ci kaw suuf jël nag tribunal bi jox leen ko ñuy àtte jaam yi wante suñu àttee ba jant so ñu delluwaat ci kaw ñibi bu fajar jotee ñu dellu siwaat nekk di àtte bu jant soyee ñu delluwaat noonu leen fi nekkee woon ñaari malaaka yooyu dee Haaruuta ak Maaruuta wante yàlla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax weer ci kaw suuf yàlla teg leen benn nattu nattu bam leen teg nag moo di dafa am benn ndaw su rafet ñuy wax Zahra mu di benn jigéen moo amoon problème ñëw ci ñoom wax leen ko wante ndeke ndaw si bi mu ñëwee taaram yéem ne leen yéem na leen lool ñoom itam ñu commencé nag di sàkku ndaw si di wax ak moom waxi caaxaan wante ndaw si daf leen wax ne leen daal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition laa leen di tëral bu njëkk bi moo di man xërëm laa gëm kon su ngeen bëggee ànd ak man fokk ngeen gëm xërëm comme ni ma ko gëmee di ko sujjóotal wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen rey nit su fekkente ni itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara mais daal ñetti yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal lii ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi laazam la ñuy yéegi suñu àttee ba ngoon jot rek ismullahi laazam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante xataada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soosu mu ne nag ndaw si ku rafet la woon nee na jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tollaloon jamono moo la gën a jekk gën la rafet ëpp la xorom wax na ni itam jigéen jooju perse la woon mu ngi dëkkoon Iran nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di Haaruut ak Maaruut te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nañu ndaw si lool ba doon ko sàkku waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibbi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaale na daam saanu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d'accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la ñu wax ni kat asalaatu li li gayrillaahi amrun azim waaw di su keneen ku dul yàlla loolu bàkkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggale rey nit moom yàlla nee na ko rey nit nee na na nga préparé sa sa sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rey jullit safara rekk nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bàkkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaayib ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo na ak sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla su jootal keneen ku yàlla wala nga rey bakkan loolu ñawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bàkkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanoo naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaaloo nanu e, yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu taray nanu nit kon buñ ne sàngara mooy umul xabaay boo ko xasee jëfandikoo rek moom muccatuloo ci yeneen ñaawteef ci dëgg la ndax jàppoon nañ ne mooy bàkkaar bi gën a ndaw wante ndeke mooy bàkkaar bi gën a mag am na ku mel ni imaam Ali ak Suddi ak Kalabi ñoom dañ ne ndaw si sax naan loowu leen sàngara ñoom naanuñu sàngara njaaloowuñu ñu itam nit waaye ndaw si daf leen nax bi ñu koy sàkku ndaw si daf leen wax ne leen laa tudrikaani xatta tuallimaani alladi tasaadaani bihi ila sama du ngeen mën a jot ci man lu dul ne xam-xam bi leen yàlla jox ngeen ci yéeg yéeg di dem kaw asamaan foog ngeen jox ma xam-xam boobu secret boobu daal foog ngeen jox ma ko kon ndaw si ku fuqale la woon ci wàllu xam-xam ñu ne ko ñun du ñuy yéeg di dem ci ko asamaan lu dul ci ismullaahil azam la ñuy yéegi te ismullaahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigéen nga wante kenn ka moom mbëggeelam ëpp ba mu wax ko ne ko waaye ten ko jàngal rek waa ji ne ko man kat dama ragal yàlla ci jàngal ko ko mu ne ko ana yërmande yàlla yàlla borom yërmande la jàngal ko ko rek yàlla ko am yërmande la gis nga nit ñu bari léegi yërmande yàlla bii ci lañuy ñuy sànkoo ndax lu ne dañ koy def rek ne yàlla borom yërmande la nit ki kay day juum ba pare soog a wax ne yàlla borom yërmande la waaw wante nag yow juumaguloo bëgg a indi yërmande yàlla kooku moom ak tayef la moo tax mu ne ko ay na rahmatullahi ana yërmande yàlla te ko ko jàngal rek waaye bi ñu jàngalee ndaw si seen secret boobu ci la ndaw si nag daal naaw rek wuti ko asamaan ba mu demee nag ba àgg ca kaw ba sori ca la yàlla masxu nag ndaw si mu nekk nag espèce u biddiw moom la tuddee biddiwu zahra mag ñu bari xam nañu ko kon ndaw si e, biddiw la boo xamante ni mu ngi ci asamaan si nit ñi di ko séentu di ko gis mooy ndaw soosu nga xamante ni mooy fitna bi nga xamante ni ci la yàlla fitnaale ñaari malaaka yi léegi nag bi jant sooyee ñoom ñu xam ne def nañu bàkkaar bu rëy jant bi so ñu war a delluwaat ca kaw nag ñu yéeg yéeg mënuñoo dem mel ni seen laaf dafa tooy waaw mel ni picc mu ñu xëpp ndox ba laaf tooy mu pët pëti pëti mënuñoo dem yàlla dogal nag ñu xam ne def neen njuumte bu rëy ca la ñu daw nag dem ci yonent yàlla Idris alayhi salaam la tax nag ñu dem ci yonent yàlla Idris du dara lu dul ne gis nañ ne yonent yàlla Idris benn nit la benn nit la wante li ni ay jëfam yu baax doon yéegee di dem ci kaw asamaan ñoom gis nañu ko gis nañ ne nit ku baax la koo xamante ni am na ay grade yu rëy ca yàlla ndax wax nañ ni eh, réew ma mu nekkoon lañ doon jaamu yépp lañ doon xëy di ko jaamu yàlla bu Idris xëyee jaamu yàlla moom lay yéeg ci moom ci ay jëf jëf yu baax mooy ëpp fuuf la waa réew ma di yéegal donte ñoom ñëpp dajaloo nen doon jaamu yàlla kon nga xam ni ne Idrissa alayhi salaam ku góorgóorlu woon la ci jaamu boroomam loolu nag la malaaka yi xam ci moom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ràmmu leen seen digganteeg seen boroom bi ñu ñëwee ci Idris alayhi salaam dañu ne ko inna ra'aynaaka yas'adu laka min al ibada mislu ma yas'adu li jami'i al xalq fashfa' lana ila allahi taala bi ñu waxee loolu Idris alayhi salaam ne ko dañu bëgg nga ràmm ñu ñaanal ñu njëggal ndax def nañu ñaawteef bu rëy yàlla daf ñu fi yabal ñu mooy ko te dañu d'accord nag moom ci ne duñu ko moy léegi nag Idris alayhi salaam moo dox diggante bi wax ak yàlla ba yàlla ne ko nag léegi kon ñaar laa leen di tegal bu leen neexee bu leen neex ci ñaar yooyu ñu jël ko bu njëkk bi moo di tànnloo naa leen bàyyi leen ba yowmal xiyaam ma boole leen ak nit ñi dugal safara wan malaaka yi yépp ne leen Haaroota ak Maaroota ba ma leen yebale ci kaw suuf dañ ma mooy te nii leen ma mooyee jël leen dugal leen safara ñu ànd ak nit ñi wala su fekkee bëgg nañu itam ma commencé léegi di leen mbugal ba keroog yowmal xiyaam su yom bu àdduna bi tukkee nag ma jéggal leen baal leen te duma wax malaaka yi ne li ñu defoon su ko defee mu suturaal leen ñoom nag bi leen Idris alayhi salaam waxee lii dañ ne ñoom d'accord nañu ci yàlla commencé di leen mbugal ba keroog yamal xiyaam mu suturaal leen foofu nag la leen yàlla yi wax nag malaaka wax nag ne maanaam ci ni leen yàlla mbugalee daf leen yóbbu ci benn dex gu nekk ca baabil baabil nag bi buñ ko waxee am na ñu ne moom mooy babilon fa la leen yóbbu nam leen mbugal mi mu leen teg nag moo di dafa leen juutal ñu daf leen maral ba ñu mar mu juutal leen ñu sëpp ndox mi ndox mi diggante seen gémmiñ ak ndox mi euh, ay centimètres yu ndaw la waaw ndox mi di leen romb te mënuñu cee naan mënuñoo laal ndox mi loolu mooy seen mbugal ba keroog yowmal xiyaam moo tax wax ne ni am na benn nit bu doon dox ba romb leen wax ne ne nag pour nga gis leen problème la waaw wante léeg-léeg nag nit dana fakkastalu ba gis leen waaw léeg-léeg rek yàlla won la leen waaw wax ne ne nag ñaari malaaka yooyu ñoo fi indi njabar ñoo daan ñoo doon jàngal nit ñi ak njibar ñu ne nag ñaari malaaka yooyu am na benn bis benn waay di dox barom bu leen daal di fakkastalu bi mu fakkastaloo nag daal di sant yàlla daal di tudd yàlla wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñoom ñu ne ah ndeki muhammadu rasulullah yàlla yebal na ko waa ji ne ko waaw waaw eh, yàlla yebal na ko de moom de ñëw na ñu ne ah kon de léegi suñ mbugal jeex nga xool ne kon ba leen yàlla commencé dalee mbugal ba bi ñu yónnee yonent bi ñoom jàpp nañ ni comme yonent bi ñëw na rek li des ci seen mbugal bareetul waaw li des ci seen mbugal jeex bareetul waaw moo tax bi waa ji ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoom dañ ne ah ndeke yebal nañu muhammad rasulullah waa ji ne leen waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xam ne kon ñaari malaaka yooyu wax nañ ni bu fekkente ni dox nga ba dajeek ñoom bu la neexee ñoom ñu jàngal la njibar waaw ñu jàngal la nag njibar niñ la koy jàngalee nag bala ñu la koy jàngal daneen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lanu ndax lii ñuy jàngale baaxul day taqale diggante doom ak wayjur day taqale itam diggante jabar ak jëkkër kon nag bu leen ko jàng kon mu mel ni ñoom balaa ñu la ko jàngal daneen la wax danger bi ci nekk ak ñaawteef yi ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak ni ko yàlla bañe su fekkente ne nag dëgër nga bopp ci fas yéene koo jàng su boobaa dañ lay wax ne la demal ca barab bale nga saw fa su fekkente ne saw nga ca barab ba léegi dana am benn leer boo xamante ni mooy jóge ci fi nga doon sawe rekk jëm kow su ko defee nag dana am nag benn saxaar buy jóge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer googu di jóge ci saw mi di naaw jëm kaw wax ne ne loolu mooy ngëm yàlla gi nekkoon ci yow saxaar si jóge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp mooy mooy yéeféer maanaam mooy kéeféer gi nga xamante ni ci la la ak njibar di dugal su ko defee nag su fekkente ne nag nangu nga soo demee saw boo ñëwee dañ lay laaj ne la loo gis soo ne gis naa benn lumière bu jóge ci sama saw mi daal naaw jëm kaw ñu ne kon loolu moo doon Suleymaan dem na léegi nag gëmatuloo yàlla amatuloo dara ci ngëm soo ne itam gis naa saxaar su génne ci saw mi daal di dugg ci sama biir i nopp mu ne kon nag loolu moom mooy ak ngëmadik yàlla loolu mooy ak kéeféer léegi nag ab yéeféer nga mën nañoo jëflanteek yow su boobaa nag lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko jàngal waaw lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko mën a daneen la ko jàngal sax njibar mën nga ciy def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakaar ne ab yonent nga ndeke ak njibar rek nga yor moo tax nag yàlla wax ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata ab jibarkat daal du mën a texe mukk ndax ak yéeféer la ab jibarkat ab yéeféer la du mën a texe mukk loolu la wax ne njibar nekk na loo xamante ni yàlla bëgg ko mu nekk pouvoir boo xamante ni nit ñaa ngi ciy def lu nekk wante la leen ciy dugal moo di bëgg àdduna rekk mooy tax ñu dugg ci njibar loola taxoon e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku leen àdduna ittaqu dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asxaru min haruta wa marut yàlla yeneent bi wax na ne yàlla nee na ngeen moytandiku àdduna ndax giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom giñ naa ci buur bi nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom maa ngi leen di giñal ne àdduna moo gën a nekk jibarkat fuufa haaruuta ak maaruuta ndax àdduna soo ci nekkee gis rafet rafet yi fi nekk gis bànneex yi fi nekk gis itam li fi nekk ci ay xéewal da nga yaakaar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xëy na ay waxtoo la fi dese wala ay minute te doo ko yëg kon nag Haaruuta ak Maaruuta e, ñoo fi indi njabar di ko jàngale wante àdduna moo leen gën a nekk jibarkat su ko defee e, ñu moytu itam àdduna bu baax ci xeetuk njabar yi nga xamante ni mu ñu koy indil wax nañ ne nit ñi xàmmeeguñu ba tey e, diggante njibar ak karaama ak mujiza nit ñi xàmmeewuñu ko ndax njibar jibarkat bi léeg-léeg da ko teg nitu yàlla waaw fekk du dara ku bon la yéeféer la boo xam ne yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko karaama ak mujiza ak njibar bokkuñu dañ ne mucjisa ci ci ab yonent lay jóge waaw mucjisa ci ab yonent lay jóge moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam yet wa mu yoroon di ko sànni kooku mucjisa la du ak njibar kooku mucjisa la waaw su ko defee itam bépp yonent bu nga xamante ni rek def na lu yéem nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddee njibar kenn du ko tuddee karaama mais mucjisa leen koy tuddee mu di miracle su dee karaama nag mu ngi jóge ci nitu yàlla yi mu ngi jóge ci jaamu yàlla yi yiw yi jaamu yàlla yi nga xamante ni balaa ñuy julli jàpp dañuy woor di joxe azak di laab sax ci laab di diglalu baax di tere lu bon moo tax ñu ne jibarkat bi moom fokk mu nekk mutamassikan bi shariati mu jën janniban lil mubiqaat فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر mu mel ni nitu yàlla bi moom lay feeñ ci moom ñu tuddee ko xarqul aada mu nekk ay xar baax yoo xamante ni dana feeñ ci moom mu koy génnee di ko def mu nekk lu yem ñépp boo ko gisee nit di def loolu nga xool ko balaa julli jàpp mu nekk itam ku góorgóorlu ci wàllu laabam nekk itam koo xamante ni lépp lu ko sharia sant mu ngi koy def kooku bu defee lu yéem nit ñi itam nanu jàpp ne la mu def nanu jàpp ne la mu def karaama la waaye du ak njabar wante nag nit ki su fekkente ne la muy def yéem na nit ñi lool ndax mu ngi def ay xarbaax yoo xamante ni yéem na nit ñi te waa ji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul woor mu ngay naan sàngara mu ngay carte li muy lekk lewul loolu lum la mën a indil rek jàppee ko ak njibar wante du karaama du mujiza ndax ak njibar moom ci nit ku taq ku tilim ko salt lay jóge wante nag mujiza ak karaama waaw ci nit ñu sell lay jóge ñoo xamante ni dañuy jëfandiku dañuy nekk nit ñu am diine di jëfandiku seen diine ni ko yàlla santaane ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane mu mel ni kon taqaleel nañ ñu diggante njibar ak mujiza ak karaama bokkuñu su ko defee nit ñi itam bañ leen jaawale mu mel ni yàlla nee na wa man yaish an zikri rahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci la nit ña toll nag léegi nit ñi bu ñu jaaxlee fokk seeti petaawkat mu leen di petaawal di leen wax loo xamante ni dara du ca dëgg ndax yàlla nee na képp koo xamante ni dummóoyu nga alquran ak sharia gi nga xamante ni wàccee naa ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nag danaa la bàyyee seytaane nag mu di sa kilif waaw wante nag ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël seytaane muy nekk kilifaam moo tax yàlla jéppi na jibarkat rëbb na ko itam ndax wax nañ ne sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anhu ndax nit ñi bi nga seetaanee bi ndax mun dugalee vidéo nga mën